bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di rafetlu ànd bi ngeen di ànd ñun tey fas yéene dellu siwaat ak yéen ci benn njëriñ ci njëriñ yi ñu baaxoo ànd ak yéen bés bu yàlla sàkk tey nag dañoo leen a indil benn secret boo xam ne dafa aju ci wàllu ñaari way dencante maanaam lu aju ci ñaari way dencante lu mel ni borom kër ak soxnaam wala jëkkër ak jabar ñoo xam ne suñu borom tabaaraka wa taala dafa dogal ñuy faral di merawante lu bari wala kenn ci ñoom di beddi moroomam wala boog ñu gis ne kenn ci ñoom itam na mu war a toppatoo moromam dëgg-dëgg dafa des nga bëgg nag suñu borom tabaaraka tabaaraka wa taala defal leen tawfiq ba ngeen mën a déggoo bu baax a baax a baax baax mën a nekk ci jàmm ak salaam mën a dund ak aafiya wa tawfiq da ngay jël suuratu bii nga xam ne moom la ñu leen indil incha allahu taala nga bindi ko ñetti yoon dangay jël saar bii ñu leen indil ngeen bindi ko ñetti yoon su ko defee bu dee borom kër gi moo bëgg a juboo ak soxnaam su ko bindee ñetti yoon na fexe ba naan ci soxnaam naan ci bu dee soxna si moo bëgg a juboo ak borom këram na fexe ba naan ci moom tamit borom këram naan ci bu soobee yàlla sunu borom sunu borom dana leen méngoole dëppoole seen mbir ngeen juboo saar bi nag mooy suuratul muzammil mooy suura numéro 73 def naa ay ayatul quran am mi ngi toll ci 20 ayatul quran saar bi mën ngeen koo fekk ci description bi ci lien bi incha allahu taala bi ngeen cliqué yam ngeen mën koo am ñu ngi leen di sant te di leen gërëm secret la bu am solo boo xam ne day juboole ñu ngi leen di sant di leen gërëm te di leen wax ngeen partage vidéo bi ngeen yeneen i mbokk jullit mën koo jariñoo asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jaaru bii nag jaaru bu am solo lool la buy dox ci wàllu ubbeeku gu yéemu lool waaye bayre ak protection ak tamit garabu kër gi nga xam ne traitement la boo xam ne bu efficace la boo xam ne benn yoon lañ koy joxe nit ki di ci gis tawféex bu yéeme lool di ci gis résultat cent pour cent ak bépp xeetu ñaan boo xam ne rek sunu diine autorisé autorisé nañu ko képp ku ci yittewoo lenn bu ko yàlla dogalee ñu mën ko dinañ la ci jàppale incha allah jërë ngeen jëf